nañ Serigne Saliou bu baax a baax a baax xam ni tawféex xéewal yëpp am na léegi lañ jóge tool yi xool ko bu baax ba mën a samp dal ba bàyyi fa nit ñi fa war a nekk am ñu ñëwaat nii pour suba ñu xëy ànd ak mbooloo mi sëriñ bi nag moom lépp loo xam si li ñuy war a ajoo li ñu wér a yittewoo defal nañu ko ba fa mujj sax raw suñ jot Serigne Saliou moom lépp tawféex lépp tey siir waaw yokk nañ si bopp bu suñu bopp daaw bi ñuy dem am na ndeyoo ren ji na dañoo am lu ko fukki yoon ak juróom ñëpp gis nañ leen jàpp geeg téye geeg lépp gis nañ leen Cerno daal boo bëggee dégg dëgg mooy Serigne Saliou ku ko ñam bëgg te ku ko ñamul waaw ñam doole daal la tudd moom liggéey bi képp ku sa dem rek da nga xam ne lii nii wuute nga ak loo ma a dem waaw liggéey bu chaque année day gën a yokk sant nañ Serigne Saliou bu baax di sant ñu jëwriñ di ay ñoom Cerno Diop Abdou Sarr Sall Ngom Zal SDT Xaadim Samb Mamoud Jité Balla Mbóoj ñëpp ñu leen sant Tamsir Aliou ñëpp ñu leen sant Njaase amul kuñ bàyyi daal ba si ndaw suñ soxna sax ñu ngi koy sant sant nañ ñëpp daal sant suñu yaay moom mi Diouf moom taxaw nañ si bidon yi yi ñu defee ndox ak yëpp ñu defal sant nañ ñëpp daal. dama ne la ku dem xel koom jàppal ni yaay fee nekk sa moo dàq sa kër lépp lu nit di ndékkee da ko am lépp lu nit di lekk da ko am xéewal li ñuy yàlla yi dafa doy sëkk sëkk ba ba des sëñ Saal defal nañu lépp ñu yëg ko ak ñàkk koo yëg te ku ñu xool xool ñeneen dana xam ne wute na sëñ daal defal nañu lépp boo bëggee dégg-dëgg junior junior loo ngi ne di ñëw moom it taxaw na si mbir mi ay gileem ak ay nag li ñu jënd ëpp na fukki ak fukki juróom xéwal yëpp tege na parce que Serigne Saliou mu ma yaakaar waaw. wàccaay bi maa ngi la fekk ak Serigne Saliou Thiam jàmm création Saliou Diagne HTC gone yi ñëpp futteeku nañ sëñ Saliou moo woote Serigne Saliou moo soxlaati tool yi ni ci ndaw ñu di doxee euh, ñi ngi wan ne Serigne Saliou bëgg giñ ko bëgg ak jamono gi ñu jamonante woon ak moom dëgg la tey ndax ñun suñ génération bi dañoo fekkante ku tedd ki muy Serigne Saliou Mbacke jamono. ñu xam ko miin ko lool toolam yi nga gis ni ci commerçant yi eh, engagé woo muy ñoom seen sëñ Saliou Thiam Sall HTDTC ku ne yëpp ñoom Xaadim Sambo Thierno Diop Abdou Sarr gars yi yëpp Sall yëpp ñooñu dañoo yor seen daayira bopp yor seen dalu bopp lañ tey dépassé ab lim la kuy liggéeyal sëriñ bi doo ko tudd waaye ku gis seen nag yi ak seen dugg mi nga xam ne alal ju bari moo ko def ñoom ñu koy jaayante kenn ku nekk ñuqi li nga yor di ca def kon yaakaar naa fii ak suba ginnaaw suba ba ginnaawaat suba ñu war a dem koom ak la fay am lépp euh, jàpp naa ne duñ def lu dul ñaanal ci mbokki jullit yi ci àdduna yëpp barke bañ fay wuti yàlla na yàlla na sotteeku ci kaw jullit yëpp yàlla na sotteeku ci kaw murit yëpp sëñ Thierno yow ñu lay nuyu ndax guddi na waaye xam nga ne suba la départ bi départ bi di la cinq 25 ba le 26 ba le 27 Mawahibul Akyaas téeméeri mbana yi mu doon togg ma nga mbal ca waañ wa suba ci waañ wi la ñuy fanaan waxtu wi temm fa la ñuy fekk ba samedi ñu départ mbooloo mi comme niñ daan demee yóbbu xéewali ci biir Xelkom amuñu xàjj ak seen pour séddale ko jàmm yàlla ya fa nekk kon ñoo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di ñaan ñu fekk ko aju baree baree bare